إلهي بحب العارفين إمامنا سقنا تجاني رجائي وعوسي للإله وسيلتي ختام النزام للولاية جملة بي أرتجي العفران من كل زلتي به أرتجي فتح المحالح كلها wiqaayatuna tijaani min kulli siddati wa kam astaki inda al ilaahi ziyaaratan zawaaya laakin al inaana bi haddati unaadi wa hal yuddi nidaawu ahal jawaa هل الدهر يهتيني مرادي ورعبتي وما زلت أرجوها من الله وحده وإن لم أنلها يا مرارة عشتي فيا قيو يا قيو يا الله xayril bariyati asalaamaaleykum wa eh, gannaaw kàddu yi ngeen xam ne xaw na fi jib kàddu yi doon ay wëy doon ay ñaan doon ñaan bi nga xam ne ki ñu yaakaar muy Alaaji Cheikh Omar Foutiyou Tall moom la daan ñaan lépp lu mu xewle ngeen xam ne kon këram xewle nañu bu ñu xewlee nag ki nga xam ne moom la daayira bi ngénte géwélu Cheikh Omar ki nga xam ne moom la Thierno Bachir naan séeréeru papatal waa kër papatal naan ko séeréeru Cheikhu Omar ndax nee nañu papatal mooy Cheikhu Omar ah, mooy jël kàddu di leen xamal ne bés bii ñu jub si yaakaar nañ ci teewaayu ñëpp rawatina nag séeréer si naka jekk ni ñu mënee pulaar yi ci alaaji Omar ndax ba mu jaaree siin gis nañ ne séeréer sa def te tukuleer yi defuñ ko woon ca Fuuta am nañ yaakaar ne séeréer si dinañ fi rawati dinañ fi jiitu liwaat war dinañ ko fi def bés bi ni muy demee ni muy tëddee am na ñeneen ñoo xam ne leen ko wax kon nag woote bi man maa ngi ko jëmal ci samay mbokk séeréer ñu mënati tukkuleer yi incha allah rabi ca bés ba o fogole kek andoy nalalu nappafal o gangum laytin nappafal a refayi we i ngenitna faal we ngupputen nda koy in ka andoona yee a jofa no ka kiina xel na jal

bisimilahi rahmaani rahim asalaamualeykum mbokk jullit yi ñu ngi waajal conférence bi ñu am sañ-sañ di ko def ci kaw ndigal ndigal li Thierno Bachiru xalifu famille omarienne moo joxe ndigal at bu nekk ñu def conférence fii ci kër Papatal conférence boobu moom moo koy tëj jël boppam ndax day teew moo taxit ñaar fukki fan ak juróom ci weeru tubaab bi ñu ngi ñaan ñépp ñu mën a ñëw fekkee bés boobu fukki waxtu ak benn su soobee ñépp war nañu mën a toog ñu xool nan lañuy tërale mbir mi ni mu gën a jekke ñu ñaan niñ ko amee woon at yu passé yenn nañu yàlla may ñu dugg ci bisimillahi rahmaani rahimi pare ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ndax lépp loo def ci sa ndigalu kilifa mën nga ci yaakaar yiw waxtaan bi nag lii la na Bachiru Taal moom lañu foog ni seetu ci jamono ji ñu toll mën nañ ko xoolee Abdul Aziz Sy Dabaax mën nañ ko xoolee Thierno Seydou Nourou taal te mën nañu jàppane ci jikku diine yu wér bokk na ci ñoo xam ni tey moom mooy seetu bi koy wone kon nag waxtaan bi ci yooyu ponk lay tegu su booba kan mooy def waxtaan bi taalibeem xaritam soppeem muy Chérif Ibrahima Aydara at bu nekk moom mooy bay lépp li mu jàppoon ngir mu teew def waxtaan bi su ko defee ba pare ngoon si Thierno Bachirou egsi déglu lu ñu wax ànd tëj waxtaan bi ak ñaan ñaanal mbooloo mi yépp yiw boobu nag ñu ngi ñaan bépp jullit mu ñëw fekkee ko ndax weer bi ñu nekk weeru yërmande la gis nitu yàlla dégg li ñuy wax ak li ñuy wax ci nitu yàlla dana mën a tàppa xol yi mën a defaraat jikko yi suñu islaam gën rafet yal nañu ko yàlla may asalaamaaleykum moɗon onon koreeji haalpulaar en yooɓe mbi mi heewi mi heewimaami onon fof onon nodde he keewal ngaron ɗo yitine galle papatal biyeteeɗo ceerno muntaga cheikh oumar muntaga ɗa ha taal conférence euh, gonɗo euh, batteɗo ɗo ko daira makko on waɗata ɗum ɗoytine golfe nord euh, marché alhames walla are dubal less min huccite e gueejo onon fof onon nodda guile koreji galle cheikh oumar e muɗum koreji sehilaɓe hoddiɓe onon fof onon nodda ƴeewal e cité eli cité adama nord hay amoji ɗi ndakaaru fof onon fof onon nodda koreeji fof sonduko sago meɗen yimɓe fof ngar tawtore o ñalawma ñalawma mo ngannduɗaa o sérif ibrahima aydara waɗata yewtere nde o waɗata yewtere nde ke erdiɗo hono hono wayata o tottiri noon exemple ceerno bachir hono woyi wonde darorgal he sërigne abdou asis si malik he ceerno seydou onon fof onon noddanone e keewal mbawɗo fof yo ar saabu ceerno bachir e hoore mum ummoto luga ar kanko tawtarte kanko waɗata duwaw machallah son garima wela min no feewi e rangodal ko koreji fof he hoddiɓe e sehilaɓe goto fof so heeɓi tan ngo eranga yo andu kañum woni carte invitation muɗum jarani kino fada invitation goto fof noon foti hawrude he duwaw o allah jarama on jarama asalaamaaleykum mbokk yépp ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di santaat suñu borom bu baax moom mi ñu may ñu fekkewaat nii bay dëgmalaat suñu bés bu tedd bi bu rafet bi nga xam ne chaque année dañ at bu nekk dañ koy def ah ñu war koo def tey jii ci ñaar fukki fan ak juróom ci weer wi ñu nekk di ci woo nag suñu mbokk yi ñëpp mbokk yëpp jigéen ñëpp nag surtout jigéen ñi ndax jigéen ñi am nañu pas-pas bu baax ndax fu ñu toogee rek jigéen ñaa fay ëpp kon nag bu benn jigéen toog na jigéen ñëpp ñëw ndax euh, bés bi bësu Thierno Bachirou la bësu papatal la te papatal ñëpp xam nañ ko ah muy nit koo xam ne tubaarkalla macha allah ah ci baax ak ci nekk lu ku nekk nit ku yiw ñépp xam nañ ko kon nag bu kenn toog na ñëpp ñëw bu ñu xëyee suba teel nañu ñëw fees tànt bi ba nga xam ne benn góor du fi am sax palaas maa ngi leen di woo yéen euh, daayira jigéen ñeeg association yéeg waa afkabak ñëpp maa ngi leen ciy woo yàlla nañu yàlla may ñu fekkee ko te tal ko yal nañu yàlla may ñu am ci ndam lu kawe sunu njot te Thierno Bachir nag mooy ñëw koloore bés bi ndax mooy ñëw fekkee ci waxtaan bi def ñaan tëj ko te yaakaar naa ne ba ñu ko commencé def ba léegi ku ci nekk wa gis nga ci sa bopp kon nag ren nag spécial lay doon kon na ñëpp ñëw ñu ngi ciy woo ñëpp alhamdulilahi rabbil alamin aouzu billahi min asheytaani irrajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu comme ni ko kilifa yi waxee ndigal jibatina na mi ngi jóge nag ci suñu papa suñu sëriñ mun Cheikh Omar Papa Tall conférence am bii mi def chaque année ci buntu këram fii cité Barrière yi mu ngi ci woo jeunesse su jullit ñëpp rawatina nag jeunesse su jullit tijaan yi surtout coordination jeune tijaan bu pikin Géejawaay bi nga xamante ni. Souleymane Ndiaye mooy président bi Souleymane si di vice président ak nag président commission d' organisation bi nga xam te ne Ousseynou Fall mooy président bi ñoom liggéey bi sëriñ bi seen loxo la ko teg chaque année ñoom ñoo ko daan yor defee ko nu mu daan jaaree yoon ñoo daan tertu Thierno Basir jëlee ko ci station ba ànd ak moom ba ci biir dal bi kon woote baa ngoog boo leen déggee ngeen xam ne loolu mooy seen invitation. ñu ngi woo it daayira yëpp yi nga xamante ni ñoom la nekk si gox bi surtout daayira Pikine Géejawaay rawatina nag daayira Rahmati daayira Rahmati mi nga xamante ni sëriñ bi ñoog moom ba ñuy tàmbali la ba léegi liggéey bi ñoom ñoo ko yor ñoom ñoo ko yor ñoom ñooy dalal gan yi lépp li nga xamante ne mooy liggéey fii ci kër gi kon woote baa ngoog wasalaamaaleykum wa rahmatullah caggal nde eraango ngo fayi e hoddiiɓe e banndiraaɓe e almuɓe e dayiraji gonɗi ɗiɗo fof noddago ngo faltaki hay goto ko ardi hen fof ñalawma en mbi en noddi hen bandiraɓe fof kala mo gandanɗa hoore ma koye diwan o finata en mbi eɗen nodda hen maire gueji fof woni maire aliune kono noon koddiɗo jeeyi fof kañum hitande fof ina tawe maire sam notaire aminata kanté kañumne ko ɓiɗɗo e papatal ko giɗo papatal ko sehil papatal hitande fof omo ara omo tawe ɗum noon eɗen ñaagui hikka kadi yo allah rokkumo cellal hawa ara o tawe oɗo ñalawma saabu ñalawma makko waɗa koye leegal makko waɗa koye diwan makko gara garɗo hen kanko wallata ɗum waɗi hay goto woppaka imamuji ɗi kañumen foof ina ñaaga yo gar tawtore ina woni hen hay goto fotani noddude men saabu hitande foof koɓe taweteɓe ɓe gara ɓe kaala hen ɓe ballita hen e yimɓe e miijo ko miijote ko holko miijete ko jikkuji haalete hol jikkuji kaaleteɗe ko jikkuji paatuɗe e diine jikku paatuɗe e diine kala kaɗa haala yo taw aɗa jogini ɗum yeru yeru on ɗon noon amin cikki e oɗo saaha hannde ko ceerno bachiru muntugaɗo ha taal woni daarorgal mbaawgal hollirde jikkuuji jooɗɗi gonɗi ɗe e diine sabu hannde kanko lomtii kala ɓesngu cheikh omar el fotiyu ɗon noon lomtaaki tan kono noon o jogii ko jikku abdoul asisi dabah sehil makko giɗo makko o fawi heen jikku ceerno seydou nouru baam makko ceerno makko sehil makko o holliri holko tarbiyu nafata hande o ngal ɗo dental noddangal ko kanko tigi ñaagi yo ñalawma o ko ñalaw makko ɗum waɗi o arat o tawtore so tawtorama kadi ko kanko waɗata duwaw wuddude ñalama yewtere nde hol jewtowo giɗo makko sehil makko almudu makko gandaɗo kala ɗo diina nodda woni shérif ibrahima aydara kañum jogii yewtere nde kala garɗo o ñande heen ma tufam noppi faaɗude e diinde ma faam kadi hol ko jabde kilifa nafata enen ne eɗen ñaago banndiraaɓe fof yo ngar tawtere on ɗon ñalawma mbele men ndendu e maɓɓe barke ñalawma on ɗon eɗen noddi hen kadi kala mo ganduɗa hoorema ene wawi janggude safina yo ar saabu ñalawma o ko ñalawma cheikh omar foutiyou tall ɗum noon bandiraɓe noddango nanɗon heddi tan hankkadi yo goto fof heeɓo ɗo wawi wonde ara tawtore on ɗon ñalawma on jarama ha yeeso muɗum ceerno basirou ɓooya men ardaade ɓooya men duwanaade en njettii banndiraaɓe fof on njaaraama ويسر رزق لا لا لا بالهناء يا ذا الجلال والجمال أدهبنا عيوبنا استر واغفرا ذنوبنا كلا ولا تسمل بنا عدوانا ولا تسلط ظالما ظلوما ولا دائفا وقابيا يوما ودخر النفوس والأرواح والقبل والأشرار والأشباه يا ربا فوق فوق رب الماء وربا تحتي تحتي في ذا الماء بملكوت جبروت رحمتي أوتك البومت جرني رحمتي وعالم الهيب وعالم النفوت وعالم الهسل ومهل الثبوت والإزل والكمال والبهاء وكبريائك وبسناء ألف قلوب الخلق للجياد حتى تراق قائم الإيمان الهادي وأيدنه بنا على أجل في سهرنا هذه وتاله ودل جميعنا لوجه الميسر ولا تهيب الرجاء والوطن وهب لكل سالك مريد طريقنا المراد بالمزيد وادوي الله بيد كل بون واشف له عن هدرة الكون حتى يسايدك أنت أنت حقا يقينا ربي بتا واسقيا ربي من ماء العيوب وتويجا كل تاج مهبوب وردي منك ردا يواتي وركبا مركب النجاة وامدد بالسر وسر الاسم وادي بإذيز يسمي والتخفي في موانة الإيال ما دام في ميدان ذاك الهالي وأبلو مواهب السنية دنيا وأخرى إسة مرجية وافتح لناه إلهي فيما نرتجي خير الفتوح يا قريب الفرج من فنة المهياه نجي والممات وأولي كبري وأولي سكارة ونبيرا قريه ونش واخشى ورا ولا تواسي وآتي الكتاب الحساب باليمين وسق الميزان يا مهين على سراد إجل كالبهر وما صابهما الله ذي طرف كالسماء ونجنا من الحساب والإقاب وارزقه في لقائه حزن الماب ولتستجب دعاء من داك وثبت الردى من ردى رداك يا ربي باسمك العظيم القدير وجائل ذي الجائل سفيل الحسر واختم لنا بالخير والسعادة وهب لنا حزنك وزيادة وصل يا ربي وسلم على محمد عين الألوه والأولى وآله ومن تله إلى القيام ما أصل وجو وصب القلم بجاه اللهم صل على سيدنا